waaw mais est-ce que war ce que image wu des forces de défense et de sécurité yu nekk di def di def maintien de l'ordre ay civil nekk ci seen wet est-ce que loolu tamit état bi war na encourager cette pratique-là parce que euh, ñoom dañuy opposition bi am ñi ñi am ay garde du corps rek am ay homme de main dañ naan tamit ñoo ñooñu noonu ñoo dugg ci manifestation yi di dóor nit ñi di gaañ nit ñi di rey nit ñi est-ce que c'est pas à l'état de faire la leçon de donner l'exemple des civils aux côté de FDS. est-ce que c'est acceptable non état bi moom li mu war a def man li ma jàpp ni moom la war a def mooy il faut ñu renforcer au maximum force de défense et sécurité yi maanaam recruter de plus en plus former nit ñi comme comprends bu baax a baax a baax je pense et puis gën leen équiper comme comprends man je pense que loolu c'est très très important foofu la réew mi toll. ba pare il faut une grande très forte brigade contre la grande criminalité. parce que Côte d'Ivoire bi ñu demee ba tollu fii nga xam ne nit ñi dañuy dajj ay banque di dajj ay supermarché di lakk ay kër dañu créer ce qu'on appelle la BAC brigade anticriminalité jox leen ay moyens yu garaaw gars yi régler réew mi parce que dafa am yoo xam ne du manifestation politique quoi soo xoolee li xew premier juin ak deux deux juin boo ci génnee sàcc gi agression yi daanaka li ci des du dara lu ci ëpp ay sàcc la attaqué supermarché toj magasin jàmbur yi bu ñu ñëwee taal fenn benn marché ñëpp daw ñu dajji cantine yi jël xaalis yi jël affaire yi. comme xale ñu ñi ñi ñu rey nag. waa il faut une brigade non attends xaaral ma la rek. Sénégal il faut une brigade anticriminalité boo xam ne grand banditisme rek lay dox. maanaam kuy piller kuy attaqué banque kuy attaqué supermarché kuy toj kuy yàq kuy incendie criminel. pour man loolu la Sénégal war a am foofu la réew mi toll. mais ñi ñu rey euh, j'en reviens à la CPI. Hmm. est-ce que Sénégal warul pousser les enquêtes ñu identifier ñi ñu rey ñëpp ñan ñoo leen rey yan condition lañ leen reyee balaa ñuy bàyyi dossier bi noonu ëllëg lu mel ni yi di ci am yoon. mais CPI mais mais lu tax yéen ngeen di lan mooy CPI un pays normal ay manifestation am mu am ay mort qui est regrettable. mais des morts dans mais G8 dans les pays des plus développés day am manifestation am mort problème bi kay mooy bu amee mort ñu enquête ba xam ki ko def bu fekkee ne voilà d'accord na je veux dire mais dans mais mais Sénégal est que tu te rends compte nombre de manifestations yi am depuis mars 2021 ba léegi je ne sais pas si les gens se rendent compte. mais on aurait préféré qu'il n'y euh, les gens se rendent compte. ci performance bi force de défense et de sécurité yi def imagine-toi un pays comme le Sénégal noo non bu baax le ma la un pays comme le Sénégal infrastructures yi mel ni ñu mel suñu tali mel ni ñu mel nga xam ni même booy def même booy def euh, maintien de l'ordre sax doo am visibilité fii ba passé fële mu am des manifestations à flux tendu depuis 2 mars 2021 deux ans yoo xam ne nii manifestation yu takkarnaase yoo xam ne nit ñi di ta takk di toj et cetera mais sincèrement li xew fii bu xewoon dans d'autres pays africains ay milliers de morts la ñuy wax dañ daañ am ay 3000 4000 cinq morts la ñuy wax temps boo am na benn manifestation bu am Côte d'Ivoire y a cent 140 morts ci benn jour xanaa xam nga ni Sénégal rek ngay ñëw en Afrique di wax maintien de l'ordre ñu lay génneel ay lacrymogènes en Afrique les gens ne connaissent pas ça donc il faut ñu xam ni suñu force de défense li ñuy def dafa metti da ngay gis des fois policiers xale yi songu leen ñu reculer daw dugg seen oto pourtant ñu ngi fetal. reportage euh, France 24 loolu loolu c'est important.